wa radiyallahu an alsahabati wattaabicin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an cheikhina ahmed atiyaani wa an saairi muqaddamihi wa xulafaihi ridan yacumu aljamic assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yeyoo cant ñaan ko mu julli ñu ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gërëmal ñu mboolem saxaaba yi ak ñu topp seen njub ñu ngi wax mbokki julli yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, ñu ngi nekkoon ci téere bu màgg bi ñuy wax kitaabu rimaaxu xizbi rahim ala nuxuuri xizbi rajim li sayidina wa cheikhina alxaaji omar ibni said alfuuti altorawi euh, sëriñ bi nag nekkoon ci fasl vingt-quatrième nga xam ne daanaka moom rek doyoon na téere tey di ci wax ngëneel zikr muy fàtteeku yàlla gis nañ dars bi ci passé ak ngëneel yi yi mu doon sard ci zikr ak importance bi mu am waaye comme l'islam lépp loo xam ne ni fo dañ koy fonde foofu ñu fonde ko ci alquran ak sunna Cheikh Omar radiallahu anhu bëgg la wax aaya yi ordonné zikr ak xadis yi nga xam ne moo ko ordonné donte junjoon na ko ci tàmbali fasl bi euh, boobu moom mooy tabaarakallahu bi ci jiitu yàlla dafa wax ci alquranul karim ne wazkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun wa qawluhu taala yaa ayyuha alladina amanu udkuru llaha dikran kasiran wa qaala adkuruni adkurkum wa qaala ala bi dikri llahi tatma'innu alqulub wa qaala inna almuslimina walmuslimaati ila qawlihi wadakirina allaha kasiran wadakirati acadda allahu lahum magfiratan wa ajran cazima ila gayri dalika min al ayat yàlla dafa wax ne yéen jullit yi dee leen fàttaliku yàlla fàttaliku gu baree baree baree bari moo tax ñu wax ne ndig digle yëpp am na waxtu ak jamono ak ab lim waaye yàlla moom dafa wax ne bu dee tudd moom nañ ko def lu bari wutelu ko lim tisbaar boo koy julli ñeenti ràkka la tàkkusaan noonu weeru koor nangami fan la vingt neuf jours la wala trente asaka dafa am lim booy génne aj dafa am boo benn yoon ngay aj mu doon farata waaye yàlla bi mu agsee ci zikr dane waskurullaha zikran kathiran tudde leen yàlla daal lu bari lool kon utalu ko lim moo tax yow jullit bi itam loo tudd yàlla rek doyul yàlla waxaat ci alquran ne ala bi zikrillahi qulub man yàlla maa ngi wax ne ci tudd yàlla ci xol yi di dale moo ñu wax ci gannaaw ne kon ku bari looy tudd yàlla cardiovasculaire maladie cardiovasculaire yu bari yuy xew yàlla mën na la ci musal euh, yàlla waxaat na ne wazkurullaha kathiran laallakum tuflihun de leen tudd yàlla lu bari ngir ngeen texe yi ngay xamee ne réussite kon ci àdduna mënoo ko am lu dul ci tudd yàlla ku la ëpp lu muy tudd yàlla moo la gën a am possibilité réussite ci àdduna loolu yàlla seedal na ko boppam mais aaya bale ca laxzaab yàllay wax innal muslimina wal muslimaat wal mumin wal muminaat ba mu jeex Cheikh Omar nee na lam ko tëje mooy wa zakirina allaha ak ñiy tudd yàlla kasiran lu bari ci góor ñi wa zakiraati ak ñuy tudd yàlla lu bari ci jigéen ñi pour wan la ne kon zikr amu ci benn boo xam ne gën naan bii góor ñee koy jagoo bi jigéen ñi déedéet yàlla ni mu tuddee zikr ci góor ñi noonu la ko tuddee ci jigéen ñi ñooñu ñëpp yàlla mu ngi leen di préparel njéggal njëkkete kon zikr turu yàlla dafay jur yàlla jéggal la ñun astaghfirullah lañ min ci njéggalu yàlla mais laa ilaha illallah boo koy zikr wala allah wala bismillah rahmaani rahim moom it day jur njéggalu boppam ndax lumière la rek te ku mu wàcc sa ruux nga set wa ajran aziman ak yool bu màgg te wax naa ne ku màgg li màgg ci moom rëy na multimilliardaire juróomi million barewul ci moom yàlla nag kenn xamul ni mu toll kenn xamul li mu am kon lu ni mu rëyee lu mu wax ne rëy na ba ne maa ngi leen préparel yool gu rëya rëya rëy rëy yàlla moomu rëy lu rëy ci moom loolu rëy na aay yi la ci Cheikh Omar indi nga xam ne tabaarakallahu doyoon na sëkk nag ndax benn aay rek nga ne yàlla moo wax lii benn aay doy na ci bu dee ci xadis yi mu ne wa rawal Buxaari wa muslim anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alaa unabbi'ukum bi xayri a'maalikum wa azkaaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi dahabi wal waraqi wa xayrun lakum min an uh, uh, tulqu aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribuuna anaqakum qaalu bala qaala dikrullah xadis bi itam gis nga jaameel xayraat yi la dajale na bienfaisance yëpp ak bienfait yëpp yonent bi dafa bokkoon ci style bi mu daan jàngale dafay uh, dafay dafay dafay questionné gis nga ñi jàngale sax bokk na ci seen euh, pédagogie bu ñëwee ci salle de classe bi dañuy jekki-jekki rek joxe benn question ne xam nangam bala ñu laa jox leçon bi loolu la ñu wax bu ko defee ku ne indi version ba ñëpp ubbi ci seen xel mu soog a jàngale li ci bëgg a jàngale yonent bi noonu la def tey dafa ne ah xanaa bëggu xanaa bëggu leen ma jàngal leen li gën ci jëf yëpp maanaam jëf yi ñu jaamoo yàlla bi ci gën kooku effectivement ku bëgg def lu baax bëgg nga ko mun a dayer wa azkaha sax inda maliikum malikikum te gën cee sell ci seen borom maanaam non seulement moo ci gën a baax mais mu ci gën a euh, euh, sell mooy moom lañ ci gën a filtré ba mu set wicc assurément ah, ñëpp bëgg nañ ko mun a dayer wa arfaiha fi darajatikum te itam sax mooy gën a élevé ci seen station yi nga xam ne moom ngeen yéeg ci seen borom xoolal melal naka ci ñetti daraja moo gën ci seen jëf yëpp moo ci gën a sell moo ci gën a kawe saxaaba yëpp yàkkamti ne ko ah kay bëgg nañ ko mu ne sax waxeeru xayrun lakum te moo gën ci yéen meneen faaqi dahabi ci dépenser or wal waraki ak xaalis ci ku ko amoon ku amoon or bu bari di ko dépenser ba mu jeex wala nga am alal ju bari di ko battre ba mu jeex ci yoonu yàlla lii ma leeni digal moo ko gën encore ah saxaaba yëpp niñ bëggee yiw ñëpp yàkkamti yonent bi continué waat ne la ko lakum an tulqu aduwakum ñëpp ñëpp jàppane xanaa mooy kon mooy li gën a metti te mooy xare ci yoonu yàlla dóorante mu ne daye sax moo gën ngeen dajeeg seeni noon ngeen leen di dóor ñu leen di dóor ñoom te ku ne xam ne looloy sacrifice ci lislaam du dëgg ah saxaaba yi jaaxle nag ne loolu foor na di kon lan la war a doon ndax li gënoon a metti mooy xare jàppoon nañ ne loolu la xaala yonent xaalu saxaaba yëpp ne que balaa bëgg nañ nga wax ñu ko waaw gaawe ñu ci xaala yonent bi wax ne mooy zikrullah mooy fàttaliku yàlla mooy yëg yàlla mooy tudd yàlla ndekete kon ki julli suba toog di zikr di zikr ba jant bi leer mu julli ñaari rakk moo gën dem xare ji dóor sa euh, loosu morom mu dóor sa loos ndax loolu mën na am éventualité ngistal te zikrullah yàlla nga koy defal gis nga xadis boobu rek doyoon na ci incité nit ñi ci ñuy zikr wa rawa ibnu xibban wal imam ahmad wa abu ya'la wal xaakim wa qaala saxiixul isnaad marfuan aksiru min dikrillahi xata yaqulu majnun gis nga imam euh, ibnu Xibban ak imam Ahmad muy ahadu muy imaamul muhaddisin ak Abu Yaala ak Xakim nettali leen ci xadis boo xam ne isnaad bi wér na ci xadis boo xam marfoo yéegal nañ ko ba ci yonent bi yonent bi wax ne képp ko baril leen loo leen di tudd yàlla maanaam baril leen leen tudd yàlla ñu ne xanaa dañ koy utal lim mu ne bu leen ko utal lim dee leen tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla xataa ba nit ñi wax ne waa ji daal majnun dafa dof nga gis ne kon ndeke bari looy tudd yàlla ak turu dof yàgg nañoo ànd da gis boo dee ndaw yor sa kurus di tudd sa boroom lu bari wala ngay beru di tudd yàlla lu bari yàlla boo dem ba yëg dara sax di jooy gis nga sa environnement yëpp dof lañ lay jàppe yonent bi ne comme nag baril tudd yàlla day jur nit ñi ne dof nga yéen dee leen tudd yàlla ba ñëpp jiñ leen dof moo tax ko bari lu muy zikr dangay gis ñu koy saboté daan ñi ñooy yàlla yàlla yi nangam nangam waaye yonent bi nee na loolu du xas tàgg la warawa euh, ibnu majaha وابن حبان في صحيحه مرفوعا أن الله عز وجل قال أنا مع عبدي إذا إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه gis nga itam ibnu maaja moo solo bi ci xadis boo xam marfo la ba tey ne yàlla subhaanahu wa taala xadisul qudsi moo wax ne man yàlla maa ngi ak sama jàmm ñu ko ah ah kay yàlla kay dara échappé ko mais raison de plus nee maa ngi ak sama jàmm bu dee mu ngi toog di ma zikr maanaam di fàttaliku di ma tudd fekk wa taxarrakat mu ngi yëngu chafataahu ay tuñam bi ngir man te ku ne xam na ne kuy wax donte son bi kenn déggu ko waaye dañuy gis sa sa bi wala sa tuñ yi di yëngu kon ndekete tudd yàlla maanaam du ci charte ngay wax ba nit ñi di dégg ndax yàlla booy boo koy tudd bu son bi génneeg bu génnul moom mu ngi lay dégg mais kuy dikkër donte son bi génnul waaye say tuñ dina yëngu ñu xam ne dafa am looy wax yàlla nee na nag fekk jaam bi mu ngi ci lool maa ngi duma tàggoog moom warawaa ak tirmidi wa ibnu xibbaan fi saxiixi wa ibnu maajaha لصحيح الإسناد أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شعائر الدين الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبت به قال لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وروى ابن أبي دنيا والطبراني والبراز والبزار an Muaaz ibn Jabal qaala aaxiru kalaamin aaxiru kalaamin faaradtu alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an qultu ayyul a'maali ahabbu ila llahi qaal an tamuuta wa lisaanuka ratbun min dikrillah wa rawaa al-Buxaari wa Muslim marfuu'an misla allazii yadkuru rabbahu mathalu allazii yadkuru rabbahu wallazii laa yadkuru rabbahu kamathali al-hayyi wal-mayyit wa lafdu muslim alladi yadkuru allaha taala wa rawa tabarani walbayhaqi mursalan udkuru allaha taala dikran xata yaqulu almunafiquna innakum muraa'uuna wa an abi dunya marfuucan ma min yawmin wa laylatin illa wa lillahi azza wa jalla fihi sadaqatun yamunnu bihi ala man yashaau min cibaadihi wa ma manna allahu taala ala cabdihi bi afdala min an yulhimahu dikruhu wa rawa alimaamu ahmadu waltabaraani anna rajulan qaala ya rasul allahi ayu almujahidina afdalu wa acdamu ajra qaala aktaruhum aktaruhum lillahi tabaraka wa taala dikran qaala fa ayu fa ayu saimu fa ayu saimina afdalu ajran qaala aksaruhum lillahi tabaraka wa taala dikra summa dakara alsalata walzakata walxajja walsadaqa kullu dalika wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu aksaruhum lillahi tabaraka wa taala dikra fa qaala abu bakrin ya aba xafs dahaba addakiruuna bikulli xayrin wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajal وروى الطبراني والبيهقي بإسناد جيد مرفوعا ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيه وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أي العباد أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال فذاكرون الله كثيرا قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه حتى ينكسر وينخضب دما فإن ذاكر الله تعالى أفضل منه درجة وروى الطبراني مرفوعا من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان وقال الحافظ المنذري xadiisun gariibun wa fi lawaaqihi al-anwaar al-qudsiyya wa samictu sayyidi Ali Xawwaas yaquul maa samma karaamatun lil-abdi afdalu min dikri llaahi tacaalaa li-annahu yasiiru jaliisan lil-xaqqi kullamaa dakarahu wa qad ixtalaa muriidun sanatan kaamilatan wa qad ixtalaa muriidun sanatan kaamilatan famaa ra'aa nafsahu waqaat laha karaama fa dakara dalika li cheikhihi fa qaala aturidu karamatan acdamu min mujalasati llahi taala thumma qaala maa raaytu akthara xijaaban minka laka fi lkaramati alcuzma sanatan wala tashcur biha faclam dalika wa qaala alimaamu qushayri addikru ruknun qawiyun fi tariqi ahli lxaqi bal huwa alcumdatu fi dalik wala yasilu ahadan ila allahi taala illa bi dawaami dikr wa dikru lisaani yasilu bihi al abdu ila dikri al qalb fa ida kaana al abdu daakiran bi lisaanihi wa qalbuhu fa huwa al kaamilu fi xaali suluuki wa qaala abu ali addaqaq rahimahu llahu taala addikru manshuru lwilaaya faman wuffiqa liddikri faqad uctiya almanshur wa man suliba addikru usila wa dikru llahi taala bilqalbi sayfu lmuridin yuqaatiluuna bihi aadaahum wa bihi yadfacuuna alaafaati allati taqsiduhum wa inna albala ida dalla ida adalla alabdu fa ida fasaca ila allahi taala bi yaxtaddu canhu fi lxaali kullama kullama yakrahuhu ba tey Mawlana Xaj Omar mu ngi ñëwaat di wax soloy zikr ak tabaarakallahu njariñ li ci nekk delloo ko ci alquran ak sunna mu wax ne ibnu xibban di raawi bu mag wax na ci saxiixam ak tirmisi ak ibnu maajaha ne yonent bi sallallahu alayhi wa benn waay dafa ñëw ci moom lu mat a déglu la benn waay dafa ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah mu ne kaa ah, mu ne ko man lislaam gi dafa yaatu lool ci man bés bu jot ma dégg ci lu bees ñu ne yaa ko wax wala sa borom kaamil bi bari na lislaam bi yaatu na ci man te loolu jullit yu bari dal na leen mu ne nag comme lislaam bi bari nay branche te mënuma maîtriser lépp dama bëggoon daal nga wax ma lenn loo xam ne man daal ci lay téye rek man tënku ci te loolu nit ku ne war nga ko def ndax mënoo matal lépp waaye jëlal dara daal nga tënku ci euh, mu ne ko mu wax ma daal loo xam ne ci lay tënku rek mu téy ci loolu yonent bi wax ko wax ju gàtt nekk lenn rek laa lay digal fexeel ba foo toll sa làmmiñ di tooy xëpp ci zikr yàlla zikr turu yàlla gis nga loolu secret bu rëy la xam nga tey jii ku xës jël maanaam imposé sa bopp ne man daal li des sama dund laa ilaha illallah rek laay zikr wala li des sama dund subhanallah walhamdulillah laa ilaha rek laay zikr wala li des sama dund salaatul fatiha rek laay zikr yeneen ci des yëpp moom leeru loolu mën na yóbbaale lële waaye boo bëggee lu ne nga dugg ci xam nga loolu itam beneen jafe-jafe rek lay doon moo tax toog fenn rek ba am lépp moo gën loolu loolu waa jooju ba yàlla ñu ko yàlla fayal waaye loolu mu dig laaj yonent bi njariñ lu rëy def cee nekk gis nga ibnu abi dunya ak tabaraani ak bazar dañu jële ci benn sanad boo xam ne mu ngi dem ba ci Muaz ibnu Jabal Muaz ibnu Jabal ku ne xamee saxaabi la d'ailleurs xale la woon sax ci jamono yonent bi euh, waaye yonent bi da ko fonkoon lool ndax jàngkat la woon borom xam-xam la ba nee na njawmal qiyaamati drapeau boroom xam-xam yi Muaz bi moo koy téye te at yu néew la am bu amee quarante ans bi muy faatu daanaka bari na xale boobu nag bi muy yonent bi daf ko yabaloon yaman ci mujj dundam euh, mook abu musa al ashari pour mu dem islamiser waa yaman waaye li ci yéeme bi muy dem yonent bi daf ko toog dénk ko dénk boo xam ne nii ne ko nag xëy na boo ñëwatee fii mën nga fi bañ a fekk keroog la gëj a gis yonent bi mais nee na bokk na ci lim ko mujjee wax ne ko Muaz moo tax moom Muaz mu wax ci xadis bii ne faraqtu axiru kalaamin faraqtu alayhi rasulullah nee na wax bi ma mujje wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa dama ko laaj benn laaj boo xam ne jar naa mujje wax itam mu ne ko waaw jëf yi nga ñu jàngal ci lislaam li muy bari bari ban moo ci gën te moo ci gënal yàlla mu ne ko nga feexe ba ba ngay bala ngaa dee sa làmmiñ tooy xepp ci tudd yàlla maanaam koo xam ne ni bu sukuraatu dee di jot ci yow fekk na tudd nga yàlla tudd yàlla ba sa làmmeñ tooy xepp xëy na nag tooy gi liñ ci jublu mooy wax pour mu pour pour mu set faw ay tuflit ay tuflit ñoo koy gunge léegi nag loo commencé di wax dangay gis tuflit yi di ñëw ndax mooy tax sa làmmeñ di amee boobu rapidité kon dafa bëgg a jàngaleen loo gën a bari looy tudd yàlla sa làmmiñ di gën a tooy del tudd yàlla ba nga xam ne bala ngaa dee fekk sa làmmiñ tooy xepp moo xam bu zahir bi la wala bu baatin bi bu dee bu baatin bi sa ruux mooy tooy xepp ci leeru yàlla euh, min dikrillah Muaz nee na loolu la ma yonent bi ji mujjë wax ma dem Yaman après foofu la ma ak faatoom fekk bi muy dellu sewaat Aboubacar la fekk muy amirul muminin beneen xadis bi Buxaari yi ak muslim yëpp solo nañ ko te loolu mooy bi gën a ci xadis yi mooy xadis bi ñuy wax muttafaqun alayhi nga xam ne xadisu buxaari la ak muslim ñoom wax nañ ci xadis boobu ne yonent bi dafa wax ne man daal bu ma leen bëggoon a indil benn misaal bu gàtt rek ci diggante kuy zikr ak kudul zikr donte ñoom ñaar ñëpp ay julit lañu da xool différence bi nekk ci kuy dund ak ku xam nga ne ku dee mënul naan ataaya mënul jug fi mu toog mënul sang boppam mënul solu du demati jàkka ja du demati fen égale daal jëmm ji bu fi nekkee nii itam njariñam bariwul or que kii dund mooy defal boppam lépp ci coobare yàlla yonent bi nee na différence boobu moom la kii tudd yàlla am ak ki ko tuddul xam nga ne différence boobu rëy na ah kooku kenn xamul différence boobu nu mu toll ndax euh, li li ndaw li muy ndaw ndaw ndaw ki de mënala ko boppam kii dund nag mooy def lépp ba koy defal keneen yonent bi nee na kuy zikr turu yàlla ak ku ko zikrul noonu la ñu mel moo tax ngay gis ñaari taalibe tijaan ñaari ñëpp di taalibe tijaan kenn ki ëpp lu muy zikr moroom ëpp ko leer ëpp ko vitalité ci wàllu yàlla ci ruux euh, tabaraan yi ak bayhaq yi wax nañu mursalan yàlla ne euh, uzkuru llaha taala zikran xata yaqulu almunafiquna innakum muraa'uuna gis nga xadis bale bale marfoo la waaye bii nii mursal la nga xam ne saxaabi bi mën na koo wax euh, pour leeral yonent bi dafa wax ne dee leen tudd yàlla lu bare bare bari ba bu leen naafeq gisee sax foog ne da ngeen ngistal ndax léeg-léeg nit dina tudd yàlla ba leer jàpp ko mu daanu ñu naan ah kii dafa bëgg a wanewu rek fekk na la mu yëg ci yàllaa tax ibnu abi dunya ba tey nettali xadis boo xam marfoo la yonent bi sallallahu alayhi ne amul benn bés wala benn guddi lu dul yàlla dina am ay sarax ay dotation gratuite yu muy séddale a ah, loolu ñëpp bëgg nañ ci de yoo xam ne bokkul sax li nga jëfoon waaye ay sarax rek yu muy joxe eh, ay dotation gratuite waaye nag mu ngi koy jox yamu biha ala man yasha mu ngi koy jox ci jaamam yi ku ko sob waaye maa ngi leen di ne amul nag ku gën ci ñooñu ko sopp euh, maanaam may yooyu amu ci bu gën mu xiir jaam bi pour mu pour mu koy tudd maanaam yàlla dotation yi dafa bëgg wax ne ay tawfiq la léeg-léeg yenn daf lay xiir ci wërsëg xam naa yooyu xam nañ ko dalay jox wërsëg mais yii dalay xiir ci jaamu yàlla yii dalay xiir ci bëgg yàlla mais yonent bi nee na dotation bu gën mu xiir la ci di ko tudd jaam amul lu toll noonu moo tax képp ku yàlla ubbil buntu zikrullah yàlla jox na la li mu gën a cher la ci waxin du dëgg ni nga xamee ne ci yi ñu am fii dara lu gënu kee kawe jama ak euh, or pur yàlla itam magasin am li mu am ba ci gën a kawe mooy xiir jaamam pour mu tudd ko ndax bu ko xasee tudd rek retombé yi kenn du xam nu toll euh, imam ahmed ak tabaraan ñoom it nettali nañ benn xadis boo xam ne dëggal nañ yi ñu romb yëpp benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñiy jihaat ci yoonu yàlla kan moo ci gën boobu bi mu koy wax loolu nag Aboubacar a ngi toog ak Omar ibnu Xataab waa ji di laaj ndax yonent bi ñi ëppoon ci ñu koy laaj mooy kaw-kaw yi ndax waa kër gi ak saxaaba yi miinu yàgguñu ko torop ci di ko laaj ndax yàlla da ko tere bul def lu ne nga laaj ko moo tax ñoom bu ñu masaan a gis kaw-kaw ñëw dañuy profité ñëw jege yonent bi jombul dinañ dina laaj kooku kom kooku du xam li xew dina laaj yoo xam bu ci yonent bi tontoo ñu jële ci xam-xam loolu moo tax ñu bari xadis yuñ naan yuñ naan arabi bi nee na nangam waa ji ñëw laaj yonent bi ne ko ñu waaw ñiy jihaat ci yoonu yàlla ñiy xeex ci yoonu yàlla ñen ñoo ci gën te ñoo ci gën a màgg yiw mu ne mu ne yonent bi ne mooy ñiy tudd yàlla mooy ñi nga xam ne nii e, ñoo ëpp ci li ñuy tudd yàlla ba pare di xarewaale xam nga xare bi rek yiw la boo ci tegaalee nag tuddaale yàlla e, dangay am buuñaa waa ji nekk waaw orkat yi nag kan moo ci gën a élevé mm, e, station mu ne mooy ñiy woor ba pare di zikri yàlla autant mu ne ko waaw léegi ñiy julli kan moo ci gën mu ne ko mooy ñi nga xam ne ni dañuy julli ba pare bari lool lu ñuy tudd yàlla mu ne ñuy joxe asaka ñan ñoo ci gën mu ne ko ñi kay joxe ba pare boole ko tudd yàlla bu bari lool waaw ñi aj ban moo ci gën mu nekk ki nga xam ne ajam yëpp que day aj ba pare waaye lépp tudd yàlla la mu nekk ñi ñuy saraxe ku ci gën mu nekk ñi nga xam ne dañuy saraxe yëpp waaye li ñuy saraxe yëpp li ci ëpp maanaam gannaaw gi dañ koy tudd yàlla dafa bëgg a wax ne jaamu yàlla koy def ba pare tegaat ci tudd yàlla da koy gën a euh, euh, euh, maanaam ful da koy gën a fortifier mais surtout da koy gën a purifier ndax lumière tudd yàlla boobu Aboubacar nag ci la gestoo Seydina Omar ibnu Xataab ñoo dendee woon nekk dëgg dëgg dëgg daal à base de li prophète bi wax ndekete kay tuddkatu yàlla yi dem nañu ak terangay àdduna ak àllaaxira maanaam dafa bëgg wax ne raafale nañ yëpp xaye tey ku xamoon benn sport boo xam ne nii benn waay moo rafale trophée yëpp xam nga kooku kiimaan lay doon kon benn sport moo mën a raafale ay trophée mas zikrullah zikrullah moo raafale trophée yi yàlla am yëpp loolu bi ko yonent bi déggee mu wax Aboubacar wax ko Omar yonent bi dana ajal bien sûr bien sûr tudd yàlla yóbbu na yiwu àdduna yëpp moo tax Mawlaana Sidi Ahmed Tiyaani noppal taalibeem ndax manoo lu ne nga def ko ci lislaam waaye boo tudd boo dëkkee ci tudd yàlla dara rëccatu la euh, jële nañ ci tabaraani ak bayhaqi bi isnaadin jayyidin bu xadis boo xamee marfoo la nee na xam nga àjjana ku fa dem rek yàlla teral na la àjjana jullit yee fay dem mais biñ duggee àjjana ba pare ba xool teraanga yi dinañu am benn regret ñoom jullit ya fa nekk ñu ne yonent bi lan mooy regret bi mooy mu ne benn heure bu ñu mas a passé ci àdduna te tudduñu ci yàlla bu ñu sañoon ñu indiwaatal leen heure boobu ñu remplir ko ak zikrullah tudd yàlla te ñi dugg nañ àjjana ba pare nga xam ne dara waratu leen woon a metti mais ñoom bu dee am nañ daal lenn lu leen metti loolu la kooku itam seen normal xam nga lu tax yow koo xam ne nii da ko doon liggéeyal liggéey bi nga ko liggéeyal dafa médiocre trop nga pare mu fay la loo xam ne nii adduna bi yëpp bu ñu liggéeyoon duñ leen fay lu toll noonu doo am kersa hmm? di nga am kersa lool àjjana noonu la mel bu fa julli ci duggee ñu fay leen teranga ju rëy dañuy rus dañuy rëccu bépp bépp bépp heure boo xam ne romb nañ ko te tudduñu fa yàlla moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa yataxassaru ahlul janna illa ala saatin marrat alayhim wa lam yadkuru llaha taala wa lam yadkuru llaha taala wa rawa الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل wa arfau darajatan inda allah yowma alqiyama qaal addakiruuna allaha kathiran qiila ya rasul allahi wa min algaazi fi sabilillah qaala law duriba bisayfihi law daraba bisayfihi xata yankasira wa yanxadibu daman fa ida fa inna dakiru llaha taala afdalu minhu daraja gis nga xadis bi itam mu ngi wax wax rek njariñal zikr ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abi said xudri yi nee na dañ koo laaj jaam yi kan moo ci gën ci gën cee màgg mu ne mooy ñiy tudd yàlla lu bari lool ñu ne waaw léegi xanaa kii xeex ci yoonu yàlla gis nga ko sacrifice bi mu def mu ne ah taxul mu dab nag boroom kii zikr yàlla kii tudd yàlla lu dul kooku di xeex ci jaaseem xeex ci jaaseem tabaarakallahu euh, ba nga xam ne euh, jaasi ji dem na ba lemu maanaam nit koo xam ne sacrifié wu nga di xeex ci wàllu yàlla ba jaasi ji lemu jamono yi nag jaasi yi lañ daan xeexe jamono ju nekk ak li ñuy euh, condition yi ñu mën a xeexe waaye mu ne kiy xeex ci yoonu yàlla ba jaaseem lemu mu taqal ko ripp ak deret kooku daal rek lañu xam mu ëpp doole kii tudd yàlla martaba ndax kooku dafa boole ñaar sacrifice la def ba dem ba àgg foofu waaye daal jaamu yàlla yëpp li mu bëgg jàngale mooy zikrullah moo ci ëpp doole wa rawa tabarani marfuan man lam yuksir zikra allahi taala faqad baria min al imaani euh, képp ku dul tudd yàlla yonent bi ko wax euh, génn nga ci gëm dafa mel ni kon tudd yi ngay tudd yàlla genre mur la boo xam ne moom ngay enveloppé sa gëm yow sa foi maanaam foi dafa nekk benn benn quintessence benn ñoose mais yow li nga koy sécuriser pour dara bañ dugg ci ñag boobu mooy di tudd yàlla lu bari waaye boo dul tudd yàlla iblis mën na am accès ci sa tool boobu dugg fa yàqal la sa foi ba tabarakallah moo tax jullit loo gën a bari looy zikr yaa ngi sécuriser sa ruux yaa ngi sécuriser sa xol gis nga alxaafiz almunzari muy abdul azim euh, dafa wax xadis boo xam ne xari nee na xadis bi xarib la effectivement parce que faqad baria min al iman boo demee ci ahadis muallala dañ fay am euh, kalaam foofu loolu ñu jàng mustalaxul xadis danañ ci xam dara euh, kon lii mooy aay yi ak xadis yi Cheikh Omar bëggoon a leeral maanaam dafa bëgg a wax ne tiijaan yi tooguñu rek di tudd yàlla jël seen lépp def ko ci kurus déedéet yàlla moo ko digle ci alquran yonent bi moo ko wax ci xadis moo tax boo déggee ku naan ñii zikri yi ñuy def bidaa la yow dalay dalay def ay ndax loo xam ne yàllaa ko digle yàllaa ko digle yàlla lu mu digle sax sunna farata xadis yu toll nii indi ci tey yii daf koo tànn rek waaye gën naa bari ni yow nga bëgg nag indi leneen ne loolu bidaa la kooku kéemaan lay doon euh, muy indi nag waxu salaf yi salafu saalix yi Cheikh Omar téere bii nga xam ne référence la ci moom muy lawaqixul anwaar al qudsiya nee na borom téere ba nee na dégg naa Seydi Ali Xawaas nitu yàlla bu mag la mu wax ne euh, maanaam karama bu gën a rëy tudd yàlla amul xam nga nit ñi dañuy toog ne dañuy wër karaama nga gis waaw yow gis nga diw li mu def moom de dafa dox ci ndox te da duggul ci biir gis nga nit li mu dox def maanaam di yéem karaama te karaama dëgg-dëgg mooy sax ci sa course di tudd yàlla est-ce que laajul endurance hmm? est-ce que laajul xam nga ñëpp dem bàyyi la fa nga toog rek léeg ngay werd sax ba yàgg di jeeyaaxu te sañoo dem tëddi kooku Euh, sacrifice la moo tax moom boroom xam-xam boobu daan na wax ne karaama bu gën a rëy toog di tudd yàlla moom nee na xamu ko d'ailleurs moo tax benn waay dafa mës a tëju benn taalib bi dafa tëju xalwa un an un an ferme tëju xalwa di jaamu yàlla di tudd yàlla xam naa am nu mu yaakaaroon ci xalwa bi ci yu mu gis ak rawaan yeeg yu kenn xamul euh, gisul dara ba at ma dee mu dem ci sëriñam Euh, bi mu génnee dem ci sëriñam nuyonteeg sëriñ bi nekk man de sëriñ dama jaaxle dama tëju xalwa un an ferme waaye gisuma benn karaama ci xalwa bi sëriñ ba téye téye gémmiñ gi nekk yow nga ne ñaata at mu nekk un an ferme laa tëju naa ko mais gisuma benn karaama mu nekk yow yow ma yàlla génne na ci yow ci waxin mu nekk karaama bi gën a rëy mooy mën a tëju un ferme jaamu sa borom te génno loolu yàlla yàlla du ko ne la koy may ah xam nga tariqa bi ki ci ne boo ko jëlee dañ naan doo bul ko bàyyeti waaw nga nekk ci liggéey ko ñaar fukki at wala fukki at ak juróom wala fukki at wala ñaari at sax loolu rek karaama la ndax ba gis nañ ba tàyyi ni ku jël werd bi balaa ñeenti at wala balaa ñaari weer mu génnaat ci yow li la ci téye ba tey ngay góor di sell di gën a baax di gën a bëgg yonent yi gën a bëgg Cheikh Tidiane boo ko tuddewul karaama waa picc bu naaw rek lan lan la doone karaama hmm? xam nga loolu kéemaan la moo tax sëriñ bi rek yow man mosuma gis ku yàlla eh, yiir ba ba àgg ci yow ndax atu yàlla nga tëju ko di wéetal sa borom loolu boo ko jàppewul karaama ban karaama <laughs> moom lay tollootel ci suuf moo tax eh, imam Qushayri yi wax ne zikr benn ponk bu bu dëgër la ci yoonu gaay yàlla yi maanaam moom mooy sax be mooy mooy wéeruwaay bi nga xam ne ni ci la gaay yàlla yi di yéegi ndax ku bëgg a yéeg nag faw nga jaar ci échelle échelle bi nag mooy zikrullah moo tax kenn du yegg ci yàlla lu dul kuy tudd yàlla lu baree baree bari léeg-léeg nag da dégg ñu naan zikr dafa am ay dimension maanaam tudd yàlla dafa am ay dimension effectivement tudd yàlla booy tàmbali ci làmmeñ nga koy tàmbali boo yàggee wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah da ngay dégg ñu naan da koy teewlu boo ko teewluwul du wér waaye waxal rek boo ko yàggee wax ci làmmiñ bi yàlla day jékki-jékki jox la lumière boo xam ne moo lay yóbbul zikrul qalb nga dem ba koy zikre ci sa xol maanaam li ngay wax ci sa làmmiñ day dem ba xol bi mooy zikr loolu léegi boo continuer laa ilaha illallah laa ilaha illallah ànd ak làmmiñ bi xol bi day jékki-jékki dugg ci ruux bi mu ngi mel ni leer goo xam ne rek bu ci inondé day duggaat ci beneen côté bi bu inondé duggaat ci beneen côté boo yeggee nag ci zikru ruux loolu la ñuy wax ne zikru boobu da arrêté ti parce que tout le temps yaa ngi sa borom subhanahu wa taala nee na kooku nag mooy ku mat ki dëgg moo tax abu ali ad daqaq wax ne a dikr mansurul wilaya yàlla daal képp fa man wufiqa li dikr képp ku yàlla xiir ci zikr ontiyal mansura jox nañ la mansur bi waman suliba ad dikru képp ku yàlla rikki ci yow zikr la yàlla berna la maanaam tey dangay dégg ku naan yàqu yàlla yàlla musal ma ci yàqu yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqu rek góor gi nee na boo bëggoon gis ku yàqu mooy ku xëy xëy bàyyi tudd yàlla koo dégg mu naan man di léegi xaw ma lu ma dal man dama daan toog suuf ba ngoon di zikr waaye léegi bu ma commencé zikr sax nelaw bu ma commencé zikr sax léegi damay sonn ba damay mujj a bàyyi xamal ne li ko li ko dugg rëy na hmm? mag ñi ku ci masaana toog mën nañu toog quatre heures de temps duñu bouger duñu yëngu duñu defar seen toogaay ngir di tudd yàlla rek euh, kon nag ku ku ko daan def ba xëy xëy bàyyi ko yaa xam ay projet nga ko tuddee wala ñàkk a jot wala kii la la dugg rëy na moo tax wa zikrullahi taala bil qalbi sayful muridin yuqaatiluuna bi aadaahum wa bi yadfauna al afati allati taqsuduhum dañ wax ne nit ku nekk ci champ de bataille faw nga am jaasi jooy xeexe waaye jaasi ji nga xam ne taalibe yi moom lañuy xeexe mooy tudd yàlla moo kon yéemewul suñu maam Cheikh xaj Hadj Malick bi ko tubaab yi ne dégg naa da yor armu mu ne waaw ñu ne ko mu tàllal leen kurus gi ne leen lii mooy sama armu effectivement ndekete Cheikh Omar waxoon na ko bu yàgg jële ko ci Seydi Ali euh, Ali Daqaq nee na jaasi taalibe moom mooy tudd yàlla boo demee ba zikr bi nangu ci yow jaratul ngay wut wayndare jarul ngay wut loo bëgg rek boo ko ñaanee sa kurus yàlla mën na ko may ci mbaaxam mu ne ci jaasi jooju la gaay yàlla di xeexee lépp loo xam ne dëgmal na leen itam ci lañ ci lañ koy défendre gis nga balaa Euh, nee na buy wàcc ci jaam bi jaam bi dem dem tudd yàlla subhaanahu wa taala balaa bi day dëpp lépp loo xam ne itam bañ nga ko boo commencé di zikr tur yàlla loolu day dëpp maanaam balaa dafa doon ay ay euh, maanaam dafa doon ay musiba yoo xam ne day taw ci euh, jaam yi ñuul kook nag buy wàcc ci jaam yi nag fekk nit koo xam ne dafay tudd yàlla kooku lumière u yàlla def koy enveloppé mu mel ni balaay bu wàccee ci moom lumière boobu sax mën na koo lakk ba nga xam ne du agsi ci borom moo tax ngay gis kuy tudd yàlla lu bari néew na luñ lay yërëme lool ndax euh, tabaarakallahu xikma yàlla ak lumière boobu mooy def ci yow wa qaala zunnuni misri man dakara allaha dikran ala alxaqiqati nasiya fi janbihi kulla cheyin wa xafida allahu taala alayhi kulla cheyin wa kaana lahu iwadan an kulli chey gis nga zun nuunil misri moom it di yàlla bu mag nee na booy tudd yàlla lu bari euh, ba yàlla nangul la ko dafay def ci yow benn jikko mooy dangay dem ba lépp lu la wër yow da koy fàtte yàlla kese ngay dund bu boobaa nag yàlla moo lay sécuriser lépp loo xam ne lu la wër la bu ko defee moom yàlla mu wuut mu wuutu ci loolu moo tax ngay gis kuy zikr lu bari presque du am soxla yu waaw parce que soxla yi la war a intimider yëpp yàlla fees na foofu bu ko defee da ngay gis ne lépp loo bëgg loolu mooy topp ci sa gannaaw waaye du yow yaay topp ci gannaaw loolu te loolu gis nañ ko ci suñ kilifa yi wa qaala imaamu shabali rahimahu llahu taala alaysa Euh, alaysa allahu taala yaqulu ana jalisu man dakarani ma allazi istafadtum min mujalasati alxaq wa min xasaisi dicri annahu gayru mawaqatin bal ma min waqtin min al awqaati illa wal abdu mamurun bi dicri illahi taala fihi imma fardan wa imma naflan wasalaatu wa in kaanat ashrafu alcibaadaati fala tajuuzu fi bacdi al awqaati wa dikru bilqalbi mustadaamun fi cumuumi alxaalaati qaala allahu taala alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa ala junubihim gis nga imaamu Shabali wax na lu am solo dafa ne ay taalibeem ak mbokki jullit yi waaw yéen xanaa déggu leen waxu yàlla bi mu wax ne man yàlla maa ngi toog ak ku may tudd képp ku toog rek di tudd yàlla yàlla mu ngi toog ak yow ñu ne ko waaw yàlla wax loolu mu ne waaw léegi lan ngeen bénéficié wu ci toog ak yàlla xam nga tey ku ne woon mag président ñooy yendu tey dinañ la laaj lan mooy retombé bi waaw yéen ñi toog ak yàlla ban retombé ngeen ci am xam naa ku ko ku ko laaj sa boppa di nga xam looy tontu yow ndax nag wax dëgg yàlla maag milliardaire bi ñoo ñooy yendu ñooy fanaan ba pare di wër di lebal leble leb mille cinq cent te nga ne kooku mooy sa lépp lu ne la lay defal xam nga yow yaa weddi sa bopp nee na bokk na ci mayu zikr euh, amul waxtu nee jaamu yàlla koo gis dañ ko utal waxtu ba mu des tudd yàlla nee na xam nga ne tudd yàlla maanaam euh, jaamu yàlla koo gis dafa am waxtu moo xam farata la wala naafila même julli sax li muy rëy rëy rëy am na heure yoo xam ne dafa xaram nga julli ci naafila lu mel ni gannaaw fajar wala yu mel noonu euh, wala bu jant bi di génn mbaa muy dugg te ku xam na ne zikrullah moom non seulement moo ëpp doole julli waaye mboolem waxtu yi dañ lay ordonné nga zikr ci booy tëdd am na ay zikr yu lay jox euh, yoo war a def bala ngaa tëdd booy dugg ci toilette am na yooyu def am booy génne am na yoo war a def boo feebaree am na yoo war a def booy dox am nayo yoo war a def booy boo boo tëddee am na yoo war a def euh, nga gis ne kon zikr moom mooy jaamu yàlla gi gën a mat ci jaamu yàlla yi euh, bokk ci xasaa'isu zikr annahu ju'ila fi muqaabalatihi zikr qaala taala wazkuruni azkurkum zikr rek lañ gis ne muy jaamu yàlla goo xam ne yow da koy def yàlla di ko def ni yow yàlla moo wax ne dee ma tudd ma leen tudd ku ne nga kon nga gis ne aller dafa am foofu noo tuddee yàlla rek dana la tudde noonu te yàlla ni mu toll la lay tudde te loolu kenn xamul nu mu toll ci ay xéewal moo tax imaamul Qusayri yi ba tey eh, wax ne innal annal malaka yastamiru addaakiru fi qabdi ruuxihi gis nga boo yàggee tudd yàlla malaaka yi dañ lay bëgg bëgg bëgg ba malaaka bi wala bila la war a rey sax bu sa waxtu jotee boo wattul da ciy waxtaan ak yow te loolu matu la weddi ndax gis nga mag ñi toujours nga dégg ci ku wax ne ah ñëw nañ fii kat di waxtaan ak man ci sama mbiru dee wala am na ci ñu lay ñu lay wax ne xam nañ date bi ñuy faatu parce que boo yàggee tudd yàlla proximité boobu ngay am ak yàlla ba fa tabarakallahu yàlla mën a mën laa may lu ne euh, imam Sahrawardi nettali na bi sanadi bi sanadihi anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala xaakiyan an rabbihi ida kaana alxaalibu ala abdin ishtigaalu bi jacaltu himmatahu wa laddatahu fi dikri fa ida jacaltu himmatahu wa laddatahu fi dikri ashiqatni wa ashiqtuhu wa rafa'tu alxijaaba fi ma bayni wa baynahu laa yashu isa saha nnaas laa yashu isa saha nnaasu ulaa'ika kalaamuhum kalaamu lambiyaa ulaa'ika alabtaalu alabdaal xaqan ulaa'ika alladina ida aradtu bi ahli al ardi cuqubatan aw adaban dakartuhum fa saraftuhu bihi anhum xoolal xadis bi rek imam Sahrawardi nettali na ci sanadam jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nettali benn xadisul qudsi yàlla wax ne man yàlla bu ma xoolee sama xolu jàmm bi gis na li ci ëpp mooy toog di ma tudd ak di ma yittoo nee na damay roof ci moom lumière boo xam ne daf may gën a bëgg di ma gën a bége di ma tudd lu bari bu ko defee nag bu ma yokkee force bi ci moom mu gën ma tudd lu bari ma def yitteem yépp ak bànneexam yépp ci tudd ma loolu bu yàggee ci jaam bi jaam bi daf may bëgg lool ma bëgg ko lool loolu bu yàggee tuuti ci moom ma ma muril ko xijaab yi muy rido yi nga xam ne moo dox sama digganteeg man muy commencé di xam ci man di yëg ci man loo xam ne ni jiituwul woon mu xam ko bu ko defee kooku nag bu demee ba àgg foofu bu nit ñi juum du juum ndax moom lépp lu muy def dañ ko koy wax ci baatin lu muy bàyyi itam dañ ko koy tere ci baatin ñooñu duñu gaaw a juum donte dañ naan nit ku juum amul waaye ñoom duñu juum ndax dañ leen jubbanti gis nga ñooñu boo leen gisee yàlla nee na seeni wax day niroog waxu yonent yi gis nga un saint ak prêcheur du benn un saint buy wax da ngay yëg ne waxam dafa ànd ak leer bu dee nag presieur bi day waaraate rek moom ay texte rek lay wax moom la woykat yi di wax ne nitu yàlla akub akub sëriñ daa bokkul bu ko defee ñooñu ñi ñuy nirool mooy waxu yonent yi donte yonent jeex na booy wër jàmbaar yi ñooñoo ngi noonu ñooñu mooy ñi nga xam ne man yàlla bu ma bëggaloon sax ci waxin suuf pour mbugal ko bu ma leen fàttalikoo rek euh, muñ ko ndax olof day wax ne koo xamul noo koy def nam la dafa tax yàlla am na ay xarit yoo xam ne nii du mbugal suuf mukk ngir respecté leen ngir ormal leen ndax comme ñoom dañoo bokk ci waa suuf wa qaala annawawi li kulli cheyin uquba wa uqubatu alaarif inqitaa an dikrillahi taala wa qaala alqushayri fi l injil ida dakarani xiina taxdibu adkuruka xiina axdibu warda bi nusrati laka fa inna nusrati laka xayrun min nusratika li nafsik gis nga imam yaxya nawawi dafa wax ne loo gis dafa am ay pénalité loo gis rek dafa am pénalité te lool neex na neex naa gëm waaye nee na arif billah euh, pénalité muy mbugal yiñ koy mbugal mooy bàyyi tudd yàlla ñoom mooy seen euh, secret de connexion sa secret de connexion nag bés boo ko ñàkkee mooy ñàkk nga dañu wax ne imam Qushayri yi dafa wax ne bind nañ ci injil yow jaam bi nang may tudd boo meree xam nga tudd yàlla li muy jafe-jafe tudd yàlla ci boo meree moo gën a jafe di fàttaliku yàlla ci boo meree da gis nit koo xam nii dafa mer ñu koy téye naan kan waaye waay bàyyil waaye tuddil yàlla mu naan ma laa wax bàyyi ma di fi taxu nga fàttali ko aaya aaya boo wax du la faale sax ndax seytaane da koy jege léegi ci la ñuy xamee kon njàmbaaru nit del tudd yàlla ci bi nga meree bu ko defee yàlla di la tudd ci moom it bu mere ndax jàmm bi léeg-léeg nga def yoo xam ne yàlla dina dina la mere waaye boo boo ko daan tudd jamono joo mere moom it bis bu la mere dina fàttaliku loolu jéggal la nanga nga bég itam ci dima dimbali ndax sama ndimbal moo gën sa ndimbal yow moo tax kon jàmm boo nekkee ci jàmm danga dimbali diine yàlla ji bis boo soxlaa ndimbal yàlla ci boppam moo lay dimbali boppam wax nañu xiila li raahibin fa qaala bi dikrihi fa ida zakartu gayrahu aftartu wa qila ida tamakkana aldicru min alqalbi fa in dana minhu alcheytaan saraa kama yasracu alinsan ida dana minhu alcheytaan fa tajtamicu alayhi alchayatin fa taqulu ma lihada fa yaqulu alinsan fara'a aljunaydi iblis fi lmanam fa qaala lahu hal taqdiru ala an tamurra ala majalisi aldicr fa qaal kama anna ahadan minna yamurru ala ahadin minkum wa yamussuhu wa yasiru majnunan wa masruan fa minna man yamurru ala majlisi zikr fa yasiru masruan wa nusammihi baynana manuusan kama tusammuuna almasruu baynakum majnun gis nga kon nga gis ne zikr foor na trop benn labbe dañ koo laaj ne ndax danga nga woor mu ne waaw ñu ne ko kooru lan la mu ne tudd yàlla gis nga nag bés bu ma tuddee keneen ku dul yàlla rek dog naa xam naa dañ ko doon wax loo mu ne patt rek ñu wax loo ko mu ne patt ba yàgg mu ne leen dama wor koor ak koor gi mooy lan mooy di tudd yàlla rek bis bu ma tuddee keneen ku dul yàlla dog naa te mooy kooru mariama inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya koor googu amoon na ci jamono yu jëkk ya mooy noppi ci lu dul tudd yàlla boo tuddee keneen rek dog nga gis nga moo tax ñu wax ne euh, gis nga même seytaane yii xam nga léeg-léeg nga dégg ko an seytaane ma man seytaane ma man seytaane ku mu man rek yow yaa dem ci environnement am euh, imaamul Junaydi dafa wax ne dafa gént gis iblis mu ne ko ndax yéen am na ci yéen koo xam ne mën naa dem ci place yi ñuy tuddee yàlla di fa yàqal ña fa nekk iblis ne ko ñun loolu mënuñu ko parce que buñ demee ci place yoo xam ne dañ fay tudd yàlla masalan fu ñuy wës fa iblis bu teye fu ñuy wës fa wala ay njabootam wala fu ñuy xadara dañuy daanu rab ñoom xam na ay rab lañ waaye ñoom foofu dañ fay daanu ay rab iblis ne ko gis nga yéen nit ñi ni ngeen mel ci boo leen rombee ci palace yu seetaane yi nekk ba daanu ñu naan kii dafa daanu rab daanu ay yësi mu naa mu ne ñun itam ku ci sop ba dugg ci place yooyu noonu ngay daanoo ñu andi leen ci ñun waaye ñun bo boo maanus lañ koy tuddee mooy kii de dañ koo nitee dafa daanu ay ay nit loolu la ñuy wax dafa daanu ci nit ñun dañ naan dafa daanu ci ay rab wala dafa daanu ay jinne ñun nag bu boobaa dañ naan kii dafa daanu ci nit di koy jéem a dëpp dëppal ba ba muy jug wala mu jaare fa dee nga gis ne kon gannaaw seytaane yi ñoo ragale palaasu zikr noonu waaw yow mi wax ne yow palaasu zikr dem fa di zikr bidaa la yow xaw ma xaw ma ci loo ne ndax iblis gannaaw noonu la ragalee palaasu zikr yi fu ñuy wës faak fu ñuy xadara yow nga ne nag foofu yow loolu bidaa la xam nga loolu kéemaan la wa qaala sahlu bnu abdullahi ma raaytu maasiyatan aqrabu min nisyaani hada rab qiila addikru alxafiy laa yarfacuhu almaliku li annahu la itilaa alayhi fa huwa sirrun bayna alabdi wa bayna allah wa qaala alxariri raximahu llahu taala kaana rajulun min asxaabina yuksir an yaqulu allah allah fa waqaa ala ra'sihi jizcun fansalaxa ra'suhu wa saqata addam faktataba ala al ardi allah allah wa qaala bacduhum wusifa lii daakirun fi achimmati fa ataytuhu fa baynama huwa jalisun ida subuun azimun darabahu wastalaba minhu qitatan fa gashiya alayhi eh, wa alaya falamma afaaqa qultu ma hada qaala qayyada allahu li hada subua fa kullama daxalat daaxalatni fatratun caddanii kama raaytu kama raayta qaala sahlu bnu abdullahi ma min yawmin lillah wal jalil subhanahu wa taala yunaadi abdi ma ansaftani adkuruka wa tansaani wa adcuuka ila wa adcuuka ilaya wa tadhabu ila gayri wa adhabu ila anka albala wa anta muctakifun ala alxataaya yabna aadam taqulu gadan ida jitani taqulu gadan ida jitani ma taqulu gadan ida jitani gis nga itam Sahlu ibn Abdullahi di borom xam-xam bu mag dafa wax ne gisuma mooy yàlla gu gën a rëy fàtte yàlla xam nga tudd yàlla mooy bu positif bi farata la waaye dañ ko bëgg lool waaye contraire mooy fàtte yàlla nee na mësuma gis mooy yàlla gu ko gën a rëy ndax yàlla nu warul nekk ci posture buñ koy fàttee euh, mu ne tudd yàlla nag li muy baax baax tudd ko nëbb ko lool moo ci moo moo ci gën ndax même malaaka yi sax mën nañ koo bañ a dégg ndax ki toog di tudd yàlla cim xelam malaaka moom son bi nga génn xëy na lay bind waaye boobu sa digganteeg sa borom rek la te nit dafa war di tudd yàlla digganteem ak borom nga xam ne du fa xaar dara lu dul bëgg yàlla rek subhanahu wa taala moo tax imaam Hariri waxoon ne fa amoon benn waa joo xam ne ci seen jamono da daan wax allah allah day tudd yàlla daal fu mu toll allah allah ba bis benn am lu fàq ci kaw rek dal ci bopp bi deret ji sànni waaye waa ji comme tudd na yàlla tudd yàlla ba deret ji sax dafay tudd yàlla nee na deret ji bi mu bi mu ne tis euh, deret ji dafa bind ci boppam allah ndax sëy gu mu sëy ci yàlla nee na dem nañ ci benn dëkk bu ñu ma tuddal ne benn waay mu nga fa di jaamu yàlla bi ma fa ñëwee ma fekk ko ci digg àll bi mu toog benn benn gaynde tiim ko waa ji fu mu bëggee bàyyi rek gaynde googu dal ci kawam dóor ko nee na ma ñëw taxaw nes tuuti gaynde gi jug xët ka mel xët moo xam ne waa ji fa la jaari xëm bi mu ximmalikoo ma waaw man dafa am nitu yàlla buñ ma waxoon ne mu ngi fii mu ne waa ji ne ko bu laajte man mii la mu ne ko loo jotee gaynde gi mu ne gaynde gi yàlla moo ma ko ombatal tegal ma ko fii bu may tudd yàlla ba bëgg a tayal rek gaynde gi yàlla jox ko digal mu dóor ma ah tudd googu de métti na xam naa ne nga gis ne kon nitu yàlla yi ak kenn ku nekk ak sa cër gis nga sahlu ibnu abdullahi itam wax na ne nit rombul bis lu dul yàlla subhaanahu wa taala mu ngi koy woo naan yow jaam bi dëgg dëgg dëgg boo boo màndu woon hmm, boo gore woon dig ma tudd te dooma fàtte ah kay añ bi nga añe ku ko jox reer bi nga reer ko joxe kooku diggante ba fàtte ko fi xaj nag yow koo xam ne yaa ngi yaa ngi dund ci ay xéewalam ba pare bëgg ko fàtte mu ne ko yow jaam bi maa ngi lay woo ci sama bopp ngay dem ci keneen loo fay def yow jaam Euh, maa ngi lay euh, maa ngi lay puusal ay balaa te yow yaa ngi dëkk ci di ma moy maanaam koo gis muy moy yàlla la tax mu tal ko xéewalu yàlla la yow jaam bi léegi yi nga dajale ci manque de reconnaissance yi boo dajeeg man looy wax wa qaala al imaamu al Qushayri rahimahu llahu taala sami'tu cheikh cheikh euh, aba abdarahman as-Sulami yasalu aba ali ad-Daqqa fa qaala addikru atammu amil fikru qaala abu ali ma alladi yaqacu lilcheikhi fiihi fa qaala cheikh abu abdurahman indi addikr atammu min alfikr li ann alxaqa subhanahu wa taala yusuf bildikr wala yusuf bilfikr wa ma wusifa bihi alxaqu atammu mimma ixtassa bihi alxaqu fastaxsanahu cheikh abu ali wa rawa ibnu abi cheybata ma min aadamiyin illa wa li qalbihi baytaani fi ahadihima almalik wa fi wa fi alaaxar alcheytaan fa ida dakara allaha xanasa wa ida lam yadkuruhu yadkuru allah wadaa alcheytaan minqaarahu fi qalbihi thumma waswasa wa qaala zunnuuni almasri dikru llahi bilqalbi sayfu lmurid yuzayyinu dikru llahi bilqalbi sayfu lmuridin yuqaatiluna bihi aadaahum wa bi yadfacuuna alaafat wa qaala abu suleyman addaaraani fi ljannati qiyaanun fa ida axada aldaakiru fi ldikri axadat almalaikatu garsa alashjaar fa rubbama yatifu bacdu almalaikati fa yuqaalu lahu lima waqafta fa yaquulu fatara fatara saaxibi wa qaala alxakimu tirmidi dikru llahi yurbitu alqalba yurtibu alqalba ويلينه ويل ويلينه فإذا خلا عن القلب أصابته حزازة النفس ونار الشهوات فقسى ويبس وامتنعت الأعضاء عن الطاعة وقال أبو مدين التلمساني أقرب رحلة تكون للمريد الذكر وقال ولا يصل أحدا إلى حضرة الإله إلا بالذكر وقال من دامت أذكاره صفت أسراره wa kaana fi xadrati illahi qaraaruhu wa qaala alimaamu subki kullu man tasaahala bilgaflati walam takun alayhi ashaddu min darbi suyuufi fa huwa kaadibun laa yajiu minhu sheyun fi tariq wa qad qaala abu sheikh almawaahibu shaadali ida taraka alcaarifu dikra nafsan aw nafasayni qayada allahu lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin wa amma gayru laarifi fa yusaamixu lahu bi misli dalik wala yuaaxadu ila bi misli darajatin aw darajatayni aw zamanin aw zamanayni aw saatan aw saatayni ala xasbi almaratibi wa qaala wa man nasiya dikra faqad kafara bima tabata fi lxabar qaal wa hada nisyaanun yutlaqu ala nisyaani algaflati aljahlu billahi taala wal ishraak bi wa ala nisyaani naflatil i'raadi an ilxaqi subhanahu wa taala wa tariqu wa kilahuma mazmumun wa qaala sayidi ibrahima almabtuuli addikru asrau fi lfatxi min saa'iri alcibaadaati wa qaala inna alxaqa taala laa yuqar taala laa yuqarrabu abdan laa yuqarribu abdan ila xadrati ila xadrati illahi taala illa an istaxyaa minhu xaqa alxayaa wala yastaxi wala yasixu an yastaxiya xaq alxayaa kadalika illa an xasala lahu alkashfu wa rafcu alxijaab wa rufica lahu alxijaab wala yasixu lahu rafcu alxijaab illa bidikri illa bimulaazamati dikri wa qaala wala yaxsulu li axadin maqaamu alixlaas alkaamil illa bidikr fa inna awalu ma yatajalla lilcabdi ida ishtagala bidikri tawxidu alficli lillahi taala فإذا تجلى له توحيد الفعل سبحانه وتعالى خرج كشفا ويقينا عن سهو كون الفعل له وخرج أيضا عن طلب الثواب عليه وعن الكبر والعجب والرياء وقال سيد علي حواص بمداومة ذكر تخدم الأمراض تخمد الأمراض الباطنة من كبر وعجب ورياء ونفاق وسوء خلق wa xasadin wa xillin wa xiqdin wa xubbi riasatin wa maylin li taqbili yadin wa qiyaamin fi lmaxaafili wa tanqatiu alxawaatiru alcheytaaniya wa tudfaau wa tudcifu alxawaatiru alnafsaaniya wa qaala bi mudaawamati dikri yazulu alxammu walhammu alwaaqicaani linnaas fi hada addaar fa inna alxamma walhamma fiiha innama huma bi qadri alxaflati an illahi subhanahu wa taala fala yalumanna illa nafsahu ida taraadafat alayhi alxumumu walhumum fa inna dalika innama huwa jazaun bi qadri icraadihi an illah faman araada faman araada dawaama alsururi falyudaawim ala aldikri wa qad yaqnacu bacda almuridina bi majlisi aldikr sabaxan wa masaan ma alxaflati an illahi taala fi ma baynaha wa yaxtaju bi xadisin ida dakara alabdu rabbahu awala annahaar saatan wa axira annahaari saatan gufira lahu ma taqaddama gufira lahu ma baynahuma id almaxfiratu la tarqa fiha wa nihayatuha an tulxiqa almudnib bima la yudnibu dalika li annaha talxiquhu biman yafcalu altaacati fafham wa muraadu alqawmi dawaamu taraqi maa al anfaasi fi lmaqaamaati wa maa dalika la yarawna annahum qaamu bi darratin waaxidatin min waajibaati xaqi allahi taala kama huwa maarufun inda ahli tariqi ba tey ci baxs bu rafet bu sell bi nga xam ne xam-xam bu wér bu àndul ak benn xuraafa euh, moom mu ngi continuer di leeral nee na dafa am ñaari sëriñ yu doon waxtaan te tudd na fi mooy Seydi Ali Daqaq ak tabarakallahu aba abdurahman as-sulami nee na ñoom ñaar ñoo daan waxtaan ne ñaari jaamu yàlla yi ban moo ci gën a rëy te mooy tudd yàlla wala di fàttaliku yàlla maanaam di xalaat ci yàlla nga xam ne dangay toog di xalaat rek ci yàlla méditation lañ koy tuddee moom ak yor sa di zikr ban moo gën a rëy Seydi Abdurahman aba sulami wax ne moom daal bi mu jàpp moo gën foor gën a rëy mooy tudd yàlla mooy yor sa kurus di tudd yàlla parce que yàlla kenn du wax ne moom day fàttaliku di méditer ci ay mbindeefam moo te moom wax na ne day tudd maanaam day tudd yàlla ni uskuruni askurkum yàlla tudd la tudd la melal boppam waaye melalu boppam ci xalaat kon li yàlla melal boppam mu gën a foor li mu melalul boppam ali ali daqaak naka dëgg dëgg wax nga dëgg rafetu lool wax ji waaw melokaan woo xam ne rek yàlla moo ko mel masa yow jàmm bi abi cheybata dafa wax ne amul benn doomu aadama lu dul xolam bu ko yëgee bu ko yëgul ñaari néeg moo fa nekk waxin la néeg boo xam ne malaaka moo fay fanaan ak boo xam ne seytaane yi ñoo fay fanaan bu dee bu tuddee yàlla lumière boobu mooy dawloo seytaane yi ñu daw génne ndax da leen lakk bu ñàkkee tudd yàlla malaaka yooyu yaatu fa xaw ma seytaane yi yaatu fa lool waaye bu tuddee yàlla seytaane yi dañuy daw malaakay yi yaatu fa looloo tax nit nga gis ci moom vice yuy indi ci moom mbaax gis itam yeneen vis yoo xam ne mbon la ñuy def ci moom ndax seytaane daf fa dëkk bu tuddee yàlla nag dañuy daw waaye bu tudd yàlla dañ fay toog di ko jax-jaxal ba du xamati lu muy def zunnunil misri yi dafa wax ne sànq romb nañ ko tudd yàlla mooy jaasi ji nga xam ne moom la taalibe yi jël di ko demee ci yàlla di ci défendre seeni pas-pas abu suleyman ad-darani wax ne dafa nekk ci àjjana benn espace boo xam ne ni lu mel ni ay tool la jardin waaye kenn jëmbatu fa dara nee na jàmm bi bu toogee ci jàkk ji wala muy wasifa commencé tudd yàlla rek ci saa si këram googu noonu du ko yëg waaye malaaka yi dañuy commencé di ko fa jëmbatal ay garab fruitier fekk mu ngi tudd yàlla ñuy ñuy ñoom ñuy jëmbat dañuy jekki-jekki rek ñoom malaaka yooyu nag taxaw yàlla ne loo leen di taxaw ñu ne ko borom bi yow de li ñuy laaj xam nga ko waaye ka doon tudd yàlla dafa arrêté moo tax ñu nit ñu arrêté loolu bu ko jaam doon gis kenn du liggéeyati kenn du dem fen da ngay toog rek di tudd yàlla ndax itam tu di tudd yàlla ñu lay jëmbatal ay garab te booy arrêté ñooñu arrêté kooku bu ko nit ki doon gis kenn du arrêté ti gis nga Hakim Tirmizi itam wax na ne zikrullah eh, maanaam tudd yàlla dafay tooyal xol da koy nooyal moo tax ku la ëpp lu muy tudd yàlla moo lay gën a nooy xol moo lay ëpp eh, eh, compréhension ci nit ñi waaye xol itam contraire ba bés boo ko bàyyee doo tudd yàlla dafay dëgër bu ko defee nga commencé di wéttalikoo bànneex yi xol bi commencé wow cër yi tayal ci jaamu yàlla ndax xol bi moo leen commandé abu madiyana at tilmisaan yi wax na ne yoon bi gën a gaaw ci yeggale taalibe bi ci yàlla mooy tudd yàlla te nee kenn du yegg ci xadara yàlla lu dul ci tudd kon daal tudd yàlla moom doyoon na sëkk képp koo xam ne sax nga ci say zikr da ngay yëg sa xol dafay commencé sell say secret rafet nga nekk ci xadara yàlla bu ko defee fa ngay dëkk imaamu subki dafa wax ne képp koo xam ne nii kullu man tasaahala bil xaflati walam takun alayhi ashadd min darbi suyuf wa huwa kaadib laa yaji minhu fi tariqi nee na képp koo xam ne nii doo tudd yàlla lu bari euh, nga xam ne daanaka tudd yàlla ak ku la rey nga yemale boo ne bëgg nga yàlla waxoo dëgg yàlla ku ko bëgg dan koy tudd imaam abul mawahib ashadali dafa wax ne arif billah ñoom bu ñu fàttee yàlla lu tollook benn noo wala ñaari long yàlla daf leen di jox leen seytaane boo xam ne moo leen sonal ku dul arif nag lu mat ñetti maanaam man mën na ëpp loolu waaye nitu yàlla yi daal ci gàttal am na ñoo xam ne buñ toogee benn minute te tudduñu yàlla seen punition dana metti lool xam nga loolu bokkul ak ñoo xam bu ñu yoree kurus Euh, buñ ko tuddee tey ginnaaw suba lañuy ñuy yoraat kuréel ga am na ñoo xam ne une heure de temps yu nekk deux heures de temps yu ne seen punition foofu lay ñëwee am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne ba ci suñu classe kii nga xam ne tabaarakallaahu xëy fukki fan yu ne danañ toog def benn dog naw ko lool bu ko defee nga gis ne daal ci gàttal essence bi dawal nit daal la bëgg a wax mooy di tudd yàlla euh, mu wax ne képp ku fàtte nag tudd yàlla weddi nga xéewalu yàlla xéewal gi moo di yàlla may gim la may tabaarakallahu ay xéewalam daa nga man ko fee fàttali fàtte te xéewloo xéewal gi loolu ñaaw na torop torop torop moo tax ibrahim mabtuuli di nitu yàlla bu mag a mag a mag daan na wax ne li gën a gaaw ci ubbi e, jaam bi moo di di tudd yàlla li gën a gaaw ci ubbi jaam bi ci mboolem jaamu yàlla yi mooy tudd yàlla parce que yàlla euh, kenn du ko kenn du ko jege te te ko nee na yàlla kenn mënu koo jege te rusoo ko te nee na kenn mënta rus yàlla te amoo kashfu ndax li ngay rus faw nga gis ko pare nee na te loolu mënul am lu dul xijaab yi moo dañ te xijaab yi mënta dañ lu dul dëkk gi ngay dëkke zikr leeru zikr bi di lakk xijaab yi te loolu manta am lu dul ci ixlaas bu wér mooy li ngay def ne yàlla rek tax dara bu mu tax bu ko defee yàlla li muy feeñal ci jaam yi jaam bi bu dee sax na ci zikr boobu da koy jox tawxidul fiil lillahi taala mooy lépp lu muy gisati day gis ne jëfi yàlla la subhaanahu wa taala bu yàlla tëjallee jaam boobu ci jëf jooju bu ko defee loolu dina ko génneel kashfu ak yaqin goo xam ne nii lépp lu dul lu mu gisati rek day gis ne loolu jëfi yàlla la bu waa mu noppal boppam dina dem ba génn ci sàkku yiw wala di di di di di bëgg daraja gis nga di rëy rëylu di naw boppam di ngistal e, maanaam bépp lépp loo xam ne feebar la dafay dafay dañ ci moom ndax day dem ba lépp lu mu gis yàlla rek la ciy gis Seydi Ali Xawaasin ba tey moo wax at ne xanaa xamoo ne boo saxee ci tudd yàlla feebaru baatin mooy feebaru xol yi nekk ci tabaarakallahu euh, feebar yi nekk ci xol ci rëy ci naw sa bopp ci ngistal ci nafiq ci ñaaw jikko ci iñaan ci bon xol euh, ci bëgg njiit ak bëgg lu neex sa bakkan ak bëgg ñu lay nuyu di fon say loxo ak tabaarakallahu booy dugg ci mbooloo ñu jug taxaw ak xalaat yu ñaaw yi nga xam ne dana la sonal jóge ci seetaane ak yeneen xalaat yi nga xam ne nii bakkan rek moo la koy jox nee na boo yàggee tudd yàlla lumière boobu dafay dem ba rey ko nee na boo yàggee tudd yàlla day dem ba dafay génn ci yow ak yitte yi nga xam ne nii moo nekk ci nit ñi dangay gis koo xam ne nii am na lu mu lekk am na lu mu naan waaye bu tëddee du nelaw ndax fit wi dalul loolu nag tudd yàlla daf la ciy dimbali raxasal la ko ba nga xam ne jàmbi du yeddati ku dul boppam ndax nit koo xam ne ni sa bopp doy na la sëkk defe doo duggati ci dix-huitu kenn bu ko defee loolu nag mooy tax bu stress yi ñëwee lumière yooyu daf koy raxas ba mu set wicc wicc wicc euh, loolu nag boo ko deful doo yàlla ak loo man dabu doo ko dab te bu boobaa dafa am xatif bu lay wax ne la lii mooy payu ku fi wan gannaaw boroomam subhaanahu wa ngir di wuti leneen fa man araada dawaama surur kon nag ku bëgg a mbégte àdduna ak àllaaxira e, nee na aliou xawaas nee na fal yu daawim ala dëkkee tudd yàlla looloo tax e, nee na gis ku doyloo taalibe boo xam ni dafay wut yàlla nee na waaw taalibe nan lay wutee yàlla Euh, jël kurusam weer de téeméeri safurlaa suba gi bala kaa defaat defaat ko ngoon ne bëgg naa li mag ñi am ma am ko kooku day foowe boppam hmm? nee na da gis taalib xam ne day zikkër suba gi balaa laalaat kurus gi ngoon ba pare ne non jàng na xadis boo xam ne yonent bi dafa wax ne boo zikkëree suba gi zikkëraat ngoon gi yàlla da dalay fay diggante bi yëpp ci yool tax bëgg lu yomba tax moom bu zikkaree suba gi balaa zikkaraat ngoon loolu kay ñi ñi bëgg a yiw man nañ ut loolu waaye yow mi bëgg yàlla yow mi bëgg a yegg ci yàlla ah déedéet nag loolu du la ko may de yooyu moom nag dëgg-dëgg kuy def lu ñëpp def nag lu ñëpp kuy def lu ñëpp di def bëgg a am lu kenn amul loolu mante ne kon nag faw nga jéem a changer doxalin kon na nga saxoo zikrullah ci mboolem nooyi ci mboolem maqaamaat yi bu boobaa yàlla dana la ci may tabaarakallahu da ngay gis ñoo xam ne buñ gisee kuy tudd yàlla lu bari dañuy mer naan a ah, mag ñi nekkuñu woon ci loolu yaw boo tuddee tuuti rek doy na fekk nag yooyu nag wax dëgg yàlla jaru ko woon wa qaala cheikh afdalu diin yajibu ala cheikh an yamura al murida an yadkura allaha bi lisaanihi bi shiddatin wa azmin fa ida tamakkana min dalika yamuruhu an yusawa yusawwi fi dikri bayna qalbihi wa lisaanihi wa qaala uthbut ala istidaamati dikr mustashciran bi annaka bayna yaday rabbika subhanahu wa taala abadan bi qalbika wala tatruk dikra xata yaxsula laka minhu xaalun qawiyun wa tasiru acdaaka wa tasiru acdaauka kullaha dakiratan la taxfal an an dikri llahi taala bacda an yulaqinahu addikr yamuruhu biljuuci ala tadriji cheyan fa cheyan yàlla saqul saqula quwaahu fa yanqati an dikri wa qaala cheytaan yarkabu axaduna yurkabu axaduna kullama gafala an dikri llahi taala e, falaw kushifa li axadina la raa cheytaana yarkabuhu kama yarkabu axaduna alximaara wa yasrifa kayfa yashaa tuula allayli wannahaari kullama gafala wa wa yunazzila anhu kullama dakar wa ajmaa alqawma ala anna dikr miftaxu miftaxu alxaybi wa jaadibu alxayri wa unsu almustawxish wa jaamicun li shataati saaxibi wa qaalu inna albala ida nazala ala qawmin wa fihim daakirun xaada canhum leylan wa ida gadiba wa ida gadiba dikr ala daakiri imtazaja bi ruuxi dikri daakiri ismu almadkur حتى إذا حتى إن بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر فقطر الدمع على الأرض واكتتب الله الله ولم يكن من شرف الذاكر ولو لم يكن من شرف الذاكر إلا أن الله لم يوقته بوقت لكان كفاية في شرفه وقال أجمع القوم على أن fawaid aldicri la tanxasiru li ann aldakira yasiru jalisa alxaqi subhanahu wa taala wa xadratu alxaqi la yuraddu alayha wa yufaariquha bi gayri madadin kullu ma warada chartuhu wa huwa alxudur Cheikh Omar radiallahu anhu ba tey mu ngi sard ci mbaaxam gu baax gii nga xam ne njariñ rek la ci jublu mu wax ne képp koo xam ne saxoo nga zikr euh, yàlla may na la lu rëy rëy euh, te seytaane yi dañuy daw sa xol waaye nee na ku sàggan ci zikr loola daal yaaka teg sa bopp ndax yi dañuy am accès ci yow euh, loolu moo tax taalibi bi warul yem ci zikr suba gi rek toogaat ba ngoon gi ne day zikr ndax cheikh afdalu diin dafa wax ne jaadu na ci taalibe muy tudd yàlla ci làmmiñam di ci dogu itam bis bu demee ba yàlla jàppandal ko mu mën a yemale zikru làmmiñ bi ak zikru xol bi da ngay gis ne leer yi day day day sax ci moom maanaam laa ilaha illallah bi ngay wax ci sa làmmiñ boo demee bu mu dugg ci xol bi rek da ngay yëg ne lumière yàlla nag mu ngi commencé ñëw di raxas sa xol bu ko defee zikru du la bàyyil dara dara dara ci jikko ju ñaaw lu dul dana ko dindi après leer googu di royaat ba ci sa jëmm yëpp sa sa sa membre euh, corps bi yëpp benn bu nekk tabaarakallaahu di tudd yàlla euh, boo sàgganee itam loola dal yaa ko teg sa bopp te loolu looloo tax mag ñi buñ daan jox nit zikr dañ lay xiifal ngir bëgg a passion boobu commencé wàññeeku dee bu ko defee nga commencé di zikr leer gi di ñëw lu mu gën a ñëw mu gën a bari lu mu gën a ñëw mu gën a bari ndax nit ki boo gisee boo amee kashfu nga ngay xool nit ki dangay gis ne buy tudd yàlla seytaane yëpp dañ koy daw waaye bu bàyyee tudd yàlla bi dañuy ñëw war ko comme ni nit di waree mbaamam jëme ko fu leen neex loolu nag yàllañ ci yàlla musal kon jaam bi war nay tudd yàlla lu bari ndax nitu yàlla yi dañu wax ne clé bi nga xam ne mooy ubbi xayb mooy tudd yàlla clé bi nga xam ne nii mooy xëcc xéewal yi mooy tudd yàlla euh, li nga xam ne mooy wéttali ku wét ci yàlla mooy tudd yàlla li nga xam ne moo lay dajaleel xéewalu àdduna ak àllaaxira mooy tudd yàlla te nee nañ bala buy wàcc ci jàmm bi bu ñëwee fekk fa leeru tudd yàlla dafay dëpp waaye yàlla bu meree jàmm bi itam wala boog jàmm bi bu ko balaa yooyu dégmalee afwan dafay dëpp buñ demee nag ba leeru tudd yàlla jaxasoo ak dereetam ak ruuxam day dem ba la muy tudd mooy mujje doon mooy soppiku ci moom mooy fanaa u bi nga xam ne nii nitu yàlla yi dinañ dem ba duñ mën a tàqale kii zikr ak li muy zikr ci la nettalee waa nga xam ne da doon tudd yàlla ba yàgg bopp bi am lu ko xañ deret ji tuuru moom sey gi mu sey ci turu yàlla allah bi mu daan zikr tax na deret ji dafa bind allah nga gis ne kon nit ki bu seey ci tudd yàlla daanaka la bëggoon yëpp am na Cheikh Omar nag gannaaw bi mu indee yi mu ngi tëj nag fasle bi chapitre bi ci indi contribution personnelle am nga xam ne def na fi tabarakallahu recherche bu kawe kawe kawe qultu wa ida aksara al abdu zikrahu bi bil lisaani xasala euh, lahu al xudur wa ida xasala lahu al xudur kasr wa ida xasala lahu kasratu dikri maa alxudur wa saara alxaqu mashhudahu wa hunaka yastaxni an dikri lisaan fala yaskuru billisaani illa fi maxallin yuqtada bihi la gayruhu la fi xuduri la fi xadrati shuhudi alxaqi fa subhanahu wa taala xadratu fa inna xadrata alxaqi xadratu buhtin wa xarasin yastaxni saaxibuha an iljamciyati bilmadluli waqad istaxna alabdu an aldalili fafham ila hada ashaara fi yaqutati alxaqaiqi biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam allahuma ajcal tacdimahu fi qulubina xayaatan aqum bihi ala wa astaciinu bihi ala dikri wa dikri rabbi wa dakara cheikhna radiyallahu anhu talaba almusalli min allahi an yakuna tacdimahu linnabi sallallahu alayhi wa sallam fi xubbi E, fi xayaati qalbihi bi bi xululi dikri llahi taala wa dikri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi qalbihi wa hada dikr alladi e, e, talabahu bitacdimi laysa huwa dikru lisaani almaahudu fi xaqi alcaamati wa innama huwa dikru alxaqiqi alladi huwa gaayatu alquswa min aldikr ida axada alcabdu fihi axada canhu bijamici daairati xisihi wa hammihi fa laysa fi shucuurihi wa wahmihi wa xayaalihi illa allahu taala subhanahu wa taala fi xaalati dikr huwa gaayatun lilmuqarrabin huwa hidaayatun lilmuqarrabin wa nihaayatuhu an yastahlika alabdu fi ayni aljamci wa yugriqu fi baxri tawxidi laysa fi fi jamici cawaalimihi xissun wa idraakun wa dawqun fa huwa wa fahmin wa ciyaalin wa xiyaalin wa unsun wa musaahadatun wa mulaaxadatun wa maxabbatun wa tacwiilun wa ictimaadun illa allahu taala illa lil fi maxwi alxayri walxayriyati eh, wa fi hada wa fi hada almaydaan yanmaxi addaakiru waddikru wa yasiru fi xaalatin law nataqa la qaala ana allah laa ilaha illa ana waxdi listihlaakihi fi bixaari tawxiidi wa hadi almartabati fi axiri maratibi dikr fi axiri marati dikri wa saaxibuhu saamitun jaamidun laa yadkuru wala yataxarrak wa ilayhi yushiru bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man arafa allah kalla lisaanuhu wa fihi yaqulu shaacir ma in dakartuka illa alhamu yalcanuni sirri wa jahri wa fikri cinda dikraaka ka an raqiban ka an raqiban xataa ka anna raqiban minka yahtafu bi iyaaka wayxaka watadkaara iyaaka fajcal shuhuudaka min luqyaaka tadkiratan walxaqu tadkaaruhu iyaaka iyaaka amaa tara alxaqu qad laaxat shawaahiduhu fawaasilu lkulli min macnaahu macnaaka li anna taaduma addikr fi jamii maratibihi kaana wasilatin ila alwusuli ila hadihi tarbiyati ila almartabati fa ida wasalaha inqataa addikru min aslihi wa saara addikru ala kulli axyaanihi istawa nawmuhu wa yaqdatuhu wa xuduuruhu wa gaybatuhu wastawa alamru inda indahu kaana maca alxalqi aw kaana waxdahu wa saaxibu hada alxaal law ijtamaca fi makanin maca jamii alxalqi wa aktaru اللغط والصخب لم يعلم من خطابهم شيئا ولا يسمع في خطابهم إلا خطاب الحق سبحانه وتعالى يخاطبه وقد قيل في ذلك ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس السرائر والقطوب والقلوب فذكر فترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليست ليس لها الغروب wa hadihi nihayatu maratibi dhikr wa lihada ja'alahu allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa axiru maratibi subhanahu wa ta'ala inna al-muslimina wal-muslimati ila qawlihi wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat fa tilka la yatarattabu fiha subhanahu wa ta'ala maratibu ahli al-iman fallati ba'da al-ukhra hiya a'la minha wa dikru daakirina axiruha li annaha laysa martabatan fawqaha qultu wa kafa bi hadihi almartaba eh, bi hadihi almartabati eh, xayran fa dikru fa daaki fa dikru wa daakirina allaha bi hadihi almartabati fa daakiruna allaha taala wa daakiraati wallahu muwaffiqu lissawaab wa ilayhi marjiu walmaab mawlaana alxaaji omar radiallahu anhu mu ngi tëj fasl bi ci leeral nag tabarakallahu zikr bu kawee kawe kawe euh, mu wax ne gannaaw nag bi nga dégloo waxu sëriñ si kenn ku ne wax la njariñal zikr moom aadam mooy waxu sëriñam lay tëjee Cheikh na Ahmed Tidiane nee na ci ngay xam ne jàmm bu continuer bu baree lu muy zikr yàlla ci làmmiñam xam nga léeg-léeg da gis kuy sonal nit ñaan booy zikr da nga war a teewlu déedéet nit ki fi mu toll rek lay lay zikre bàyyi ko rek mu toll ci fi mu toll di zikr léegi loolu bu yàggee day dema dema dem ba yéeg tabarakallahu ndànk-ndànk ci lumière yàlla yi ñu ko yàllay jox ci ruuxam dana dema dem ba sommet bi mooy day mel ni ku janook yàlla nii toog di ko zikr nii loolu nag bu yeggee foofu dafay commencé muuma du xamati lu muy wax ndax la muy yëg ci yàlla du ko mën a interpréter loolu moom la cheikh na ahmad tiyaani suñ sëriñ firi ci yaqutatul xaqaaiq bi taarifi bi xaqiqati saydil xalaiqi ci jawahirul maani ba mu àggee ci jika firi ba ci àgg ci passage bi mu ne wajal taadimahu euh, euh, maanaam euh, maanaam waj talaba almusalli min allahi an yakuna taadima annabi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi wax ci saar bi eh, wala maanaam ci eh, ci ci ci salaatu ba allahuma wajal taadimahu fi qulubina xayatan aqum bihi wa astainu bihi ala dikrihi wa dikri rabbihi cheikh ba mu koy firi nee na kiy ci yonent bi dafa ñaan ci yàlla pour yàlla yóbbu ko ci daraja boo xam ne ci yonent bi day dem ba du fàtteeti yàlla du fàtteetu yonent bi au contraire muy source de vie sax bi tax muy dund maanaam fu mu toll ci yàlla lay dunde fu mu toll ci yonent bi lay dunde nga xam ne du xamati kenn ku dul ñaar ñooñu yàlla yonent bi seey ci ñoom bu ko defee loolu maqaam boobu dafay mujjee yóbbu ko ci beneen dimension mooy mu dem ba lu dul yàlla seey ci kanamam ba nga xam ne yàllay kese rek lay gis moom lay dund moom lay xam loolu martaba bu kawe kawe la Cheikh Tijaani radiyallahu anhu ci firi bi ba tey ne jàmm bi nag bu demee sax ci tudd yàlla dafay dem ba tudd yàlla dafay mujj jël mboolem intimité euh, mu sey ci xadara boroom subhaanahu wa taala boo xam ne du yëgati dara euh, bu ko defee loolu ima imagination yi muy imagine yëpp yàlla lay doon yëg yàlla moom mooy dundam day dem ba day mel ni ku lakk ci jëmmi boroomam subhaanahu wa taala mu mel ni ku dugg ci safara ku dugg ci safara ku la waxoon sax noo tudd sa tur koy fàtte ndax sey gi ngay sey ci moom ko defee nga lab ci géeju tawxid muy l'unicité de Dieu nga xam ne sa mboolem dund yi yëpp remplir na yàlla ba fees del moom ngay janool moom ngay imaginer moo lay wéttali moo lay dalal ci moom ngay wéeru moom ngay bëgg moom ngay tënku ci mbooleem jamono yépp nga xam ne far nga ci sa xol lu dul yàlla nga xam ne dem nga ba yow mi tudd yàlla seey nga ci biir la ngay tudd la ngay tudd itam seey sey na ci ka ngay tudd nee na Cheikh na Tiyaan nee na jaam bi bu àggee foofu moom la ñu alfanaa ul mahd boo nekk woon yow yaay kan danaan ana allahu laa ilaha illa ana man maay yàlla te fekk moom waxul yàlla ci boppam mooy wax ngir seey gu mu seey ci géeju tawxid googu ba nga xam tawxid mooy wéetal fekk nag yaa ngi fi yow wéetaloo kenn wéet mooy kenn rek a fi mais yow bu ñu nee noo nga wax sa tur yow yaa ngi fi kon léegi nan ngay wéetalee yow fi kon bari na ko an da ngay wax tawxid tawxid te yow yow yow mi fi ne yaa yaa yàq tawxid bi kon faw nga far ba pare yow pour yàlla mën a nekk kenn waaye fekk yaa ngi fi toog yow di revendiquer sa cër rek mooy yow wéetaloo Seex Tijaan yi lool lay yare nit mu ne nag boo demee ba seey ci géeju tawxid googu nee na zikr boobu dafa am ay dimension léegi bu ko defee boo demee ba far yow existé too boo da ngay mel ni rek jëmm ju ñu ju ñu teg fii nga mel ni benn xeer rek ne yaaj ne sëmm nga xam ne bu njëkk bi yaa doon tudd waaye léegi daanaka yow existé too doo tuddati doo yëngu parce que seey gi jëmm yàlla subhanahu wa sey bi ngay sey ci moom moom la woykat bi di wax ne ah yàlla maa ngi nii de fu ma la tuddee am na benn sama sixième sens naan maan e yow bàyyil tudd gi ngay tudd parce que nekkoo yow bay tudd bàyyil yàlla ak boppam dafa mel ni daal dafa am benn waa ju may fuklu mooy ñëw di ma woo naan maan maa ngi lay wottandikuloo ngay tudd yàlla gis nga aarifuuna billahi martaba bi kawe na torop yow tudd yàlla mooy yiw bi gën a rëy ñoom tudd yàlla ñoom ci euh, fàttaliku yàlla mooy bàkkaar bi gën a rëy ndax nee yàlla waroo ko woon ba koy fàttaliku léegi moo tax mu ne na nga jël maanaam sa ja eh, jox ko yàlla te nga wattu di ko fàttaliku parce que waroo ko woon fàtte xanaa gisoo jëmmi yàlla ji leeram yépp a ngi taxaw sa kaw waaw kon nag na nga jox ko sa diggante sa say lien ak moom Seexna Tijaan yi ne nag boo bàyyee zikr boobu ci mboolem martaba yi nga xam ne yow sey nga yow ba xamatoo looy zikr ndax yow mi zikr existé too lay lay zikr existétul ka ñu tudd a fi jota ne loolu benn yoon la boo xam ne nii ku ca dem dinga dugg ci maqaamul fanaul mahd da dangay dem ba yow kon zikr ci mboolem say jamono utalaatoo ko heure ndax see nga ci biir jëmmi yàlla bi nga xam moom moom ngay tudd bu boobaa say nelaw say yeewu sa toogaay sa absence yëpp ay yem ci yow dara changé tul ñooñu mooy nitu yàlla yooyu nga xam ne doo leen gisati sax ñu yor kurus ndax seey gu ñu seey ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala mboolem adduna bi buñ daje woon euh, taxaw sa kanam di wax ku nekk di yuuxu di coow waa jooju àgg ci boobu maqaam nga xam ne seey na ci yàlla du ci dégg dara lu dul yàllay wax lu mu gis day jàpp ne jëfu yàlla la lu mu dégg day jàpp ne yàllay wax kooku euh, coow du ko bari du ko sonal environnement du ko déranger loolu la waykat bi wax ne bi zikrillahi tazdaadu zunub wa tantamisu sarairu wal qulubu nee na toog di fàttaliku yàlla day yokk ay bàkkaar day fay ay secret ak xol te ku xam ne ne loolu la yàlla waxoon fële ne alaa bi zikrillahi tatmainul xulub day gën a sellal xol yi daf koy gën a dëgëral daf koy gën a dalal kii nag nee na da koy da da koy da fay sax contraire bi la la wax tudd yàlla bokkul ak fàttaliku yàlla boo fàttalikoo yàlla rek mooy danga ko fàtte woon fàtte googu la wax ne bàkkaar la kon na bàyyi di fàttaliku yàlla te xam ne tabaarakallahu jëmmi yàlla ji buñ ko mënoon nirale ak jant jant la boo xam ne nii du so jant bu dul so nag nga yori bët waroo mën a toog naan gisuma ko te yàlla mooy az-zaahiru moo gën a feeñ sax jant bi kon yàlla subhaanahu wa taala la martaba bi gën a kawe ci jaamu yàlla mooy zikr waaye zikr itam martaba bi ci gën a kawe mooy dem ba doo gis ku dul jëmmi yàlla subhaanahu wa taala mu ne loolu mooy somewu zikr moo tax yàlla def ko muy mujjug tabaarakallahu martaba yi mu doon wax ci lislam yàlla wax na ci suratul ahzab innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat bi jeex cheikhu nee fi mu fi mu tëjee mooy wazakirina allaha kathiran wazakirati aadda allahu lahum magfira wa ajran aziman euh, nee na darajay l'islam bi yàlla daf ko def progressivement l'islam mooy jiite mumine tegu ci xaanitina tegu ci ba tabaarakallah mais nee na sommet bi mooy zakirina allaha taala kathiran wa zakirati ñi tudd yàlla lu bari ci góor ñi ak jigéen ñi nga gis ne kawel gi mu ko kawel seen tiyaan dafa bëgg a jàngale ne kon maqaamu tawxid bi gën kawe mooy maqaamu dikr bi nga xam ne borom dem na ba gisatul ku dul yàlla loolu yow mi jàng yàqutatul xaqaayiqi loolu ngay ñaan Cheikh Omar jël sharx boobu leeral ci lii lii nag lan la ci jublu Cheikh Omar nee na maa ngi lay xamal ne lii daal laa la mënoon a indil nga xam ne martaba bi gën a kawe daal ci lislaam mooy a dikr ndax yàlla wa zakirina allah kasiran wa zakirati aadda lahum maxfirat wa ajran aziman nee na bu fekkoon beneen martaba féete na ko kaw yàlla dina tegaat beneen kon yow mi nga xam ne